dañu doon ay producteurs yoo xamante ne nii dañuy bay ba mu ñor bu ñu bu buñ ko yóbboo marché dañuy am problème mu jaay ko loolu nag mu ñu koy subir at yi yëpp jooy nañ ko fu ñu ko war a jooy mais dafa mel ni ñu ñuy waxal dégg ñu ku si mel ni ministre di commerce ak directeur u ARM bu ñu ñëwee tam ci côté engrais bi mënatuñu jot engrais mën nañ ne ñun ren kuréel gii ngay gis nii muy baykat yi nekk kunun nekk puut nekk euh, euh, jogo nekk nootu engrais ba ñu war a jot dëgg-dëgg jotuñu ko engrais bi cher na cher goo xamante ne nii pour nga am ci accès sax problème la léegi nag ñu ngi ñu ngi koy jooy ñi ñu ko war a jooy ñëpp mais boobu ba léegi dégguñu ñu ñu ñëwit ci agro business yi agro business yi nga xam ne ñoo wàllu ci ci mbay mi ñoom ñoo ñu traité di jaay suñu légumes yi ci marché bi ñuy cité tam marocain yi nga xamante ni ñooy jaar ci frontières yi frontières yi di indi légumes yi fii ci. Sénégal léegi nag bindoon nañ préfet de Dakar pour mu autoriser ñu place de la nation pour deux heures de temps ou trois heures de temps mais dafa rejeter suñu demande dinañ defaat recours Il bindaat mu xame di leen xamal ne maraîchers yi nekk Sénégal dañu son, dañu tayyi dañu maar fi mu toll négociation moom amatu fi bu leen neexee nañu jël seen i mitrailleuse tiré ñu ko ñu dee ñun ñëpp mais nag manque d'organisation bu directeur u ARM directeur u ARM fa mu toog na fa jógee parce que li muy def manu si dara moom ak ñamu àndal kumba am ndey ak kumba amul ndey moo am ARM ba mu fa toogee ba léegi commercialisation bi dafa sooxe président de la république la ñuy waxal ay ndaw nag yu frustré ñooy wax ak ñoom ay ndaw yu sonn ñooy wax ak moom na leen déglu te jox leen nopp nañu recevoir nu mu gën a gaawee. baykat yi sonn nañ baykat yi sonn nañ baykat yi